mbokk yi ñu ngi waajal bis bu màgg ci lam mbokk yi mu nekk combat bu am solo boo xamante ne mi ngi am le 5 juin ci arène national combat bi li ci gën a neex mooy xale yi nga xamante ni boole nañ leen ci bis bi muy xale yoo xamante ni nii kuñ ci wax turam Xeeru Ngor numéro 2 xam ngeen ko du ñu ko présenté wax leen moom ak Paul bu daaru ñooy daje. ñu wax leen ni leen ndooy euh, Vito da ciy daje ak ki nga xamante mooy ndooy vitamine Karbala ak ki nga xamante ne ni moom mooy sama copain booy Waalo loolu combat la boo xamante ne man mii bi ma ko gisee léegi rek ci combinaison yi dafa doy waar waaye loolu yëpp bu amee dañ ciy jaajëfal remercier ci ki nga xamante ne bu làmb yegsee fii daf ci am cër muy Abdou Lahat Ndiaye. tey nag ñaari parrain yi fi am ku ne xam na ni ku leen gis ñu toog di nga xam ni kóllëre moo leen fi teg. Mm-hmm. di nga xam ni xaritoo moo leen fi teg ci li ngay wane rek ni Jibson xalaat bi rafet na. waaye li am solo rek mooy ànd ak nit. ngeen mm. ànd ci dëgg ak coloré. Mm. Bamba fay sunu frère la suñu xarit la. Mm-hmm. ñu respecté ko naw ko lool. Mm-hmm. jox ko cër bi mu moom ci ñun. Mm-hmm. muy nit ku neex àndal di nit ku dëggu mais bu ko jibi joxee drapeau jox na ko jéey jox na ko ñëpp ñu bokk association. mérité na ko te yaakaar naa kenn du ko seen mu toog ñu jox ko drapeau ñu ne amu ci cër. déedéet. kon drapeau bi drapeau Bamba fay la no seulement la buñ ko jox waaye suñu drapeau la ñun. ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla jàmm suñu borom dolli suturaam. amiin bala sànq ci arène nationale. Mm-hmm. mu ñëw te xam ne doomu ndeyam moo ko jox boobu cër. ñu mm-hmm. gërëm di ko ziar waaye nag Tapha moom dafa am leneen lu particulier. Mm-hmm. dañu bokk ay xarit. waaw bokk ay am di jàmm jaxasoo ak sunu ay am di jàmm di suñuy mbokk. Tapha mën nga ne boo xamee digganteem ak Abdou Aziz. Ndiaye mën nga ne doy na boo ne diggam ak Baye Ndiaye doy na. waxatuma tey boo ne diggam ak Balla Gaye numéro 2 ñëpp xam mhm. non seulement mu dëkk géej waaye mën nga ne digganteem ak Lat Diop Lat Diop kenn ku ci ne ak ñi nga séq ak ñi la yàlla booleel mhm. comme loolu laa man a wax comme ci Bamba ba ma mhm. ne xam ne Bamba Faye ak Kader Ndiaye mën nga wax nii su la neexee nga ne ak Cheikh Amar ak Cheikh la ñi toog fii duñu n'importe qui ci làmb nañ ci cër déedéet non seulement ñun ñi nekk ci biir ñoo war a tare lante kon jibi bu tare ay nit yu nekk ci biir làmb ji donc loolu ñëpp koy lu ñëpp ànd ci ak moom di sant Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ni sama xarit la. ni naa leen mm. duutuma ko sant dama koy ñaanal. waaw di sant Tafa Booju mi nga xam ne nii moom laa tuddee làmb ji muy sama xarit ñu bokk ay xarit. mu mm-hmm. ci demee ne Abdou Assis. Mm-hmm. ak Baye Ndiaye gis nga leen ma jàppale affaire sponsor yeeg yëpp. Mm-hmm. ñëpp ci lañ nekk. wëlbati ko yëkkati ko jox ko laab. sama digganteeg Bamba Faye nag kenn du ci kenn du ko laajte. ndax Bamba ñoo bokk association bokk lu ñu gëm. muy nit koo xam ne ni nit ku dëgg la ku dëggu la. nit jàmbaar. kon bu ma ko tuddee drapeau ku ko gis ci sama wet kenn du ne lu tax nga tuddee ko mu du may di kontaan ci émission bi di kontaan ci Pape du sama xarit fii sama kër la. dëgg bu ma fi ñëwee rek ci sama kër laa loolu leer na. di nuyu nag suñu waa dëkk. Mhm. seew. seew leer ma cay décoré ñaari nit. Mhm. Pape Fall doomi seew la sama lamb laat xam na ko di ciy jàpp. waaw mhm. waaw ñu ciy delloo delloo njukkal di ci décoré Bako Ndiaye. Bako Ndiaye di sama xarit di doomi ilimaani dëkk ba. saa yu may. def lamb mu ne ca dëkk ba di wàcce ay kaamil di may ñaanal di def ay ñaan muy ñëw fii mm-hmm. waaye borom xalima gi ci teew ñu ngi ko ci décoré dinaa xamante ne du Mbaye daal kontaan nañ trop ci lamb ji ndeysaan incha allah mm. Modou ma lay wax ne lamb ji mm. ju ma ñor la waaw parce que lamb ji lu mu ñor ma mm-hmm. xam nga Abdoulahat dañoo dem ngénte Baye Ndiaye waaw ci ngénte la Gibson ne ma dama lay tuddee drapeau ma ne ko non bul ma tuddee yooyu de <laughs> ci kaf rek mu ne ma non dama la koy tuddee su ma toog rek mu ne ma tuddee naa la drapeau waaw man bàyyi na ma jël ma ne ko kon bàyyi damay jël parce que bu xoolee téléphone am répertoire am na téeméeri tur waaw mu xool ci benn tur sargalee la ko kon mm-hmm. sant ak cant la mm-hmm. euh, te nit nag yaa ko mérité de ku fi bàyyi ñëpp tuddee la drapeau mm-hmm. di nga woo ña nga am waaw ñi nga xam ne ñoo nekk say nit mbëri nag la ñuy wax ndaxte làmb dafa am fu mu toll te ñun ñi nga xam ne ñoo ne ñooy nitu làmb yi. Mm-hmm. dañoo bëgg sauver làmb dañoo bëgg làmb dem foo xam ne. Mm-hmm. fi ñuy xaar bu ñu fa fekkati. mooy kuy dem war nga mën a waxtaan ak say supporters identifier leen ne leen portable jàmbur boo ko rombee bul ko këf sunu yoon nekkul ci parce que fi ñu yóbbu nekkuñu foofu. Mm-hmm. làmb yëfu noobul la. vraiment kontaan naa ba fu kontaan wees. ndaxte tey jibi ñu mu xam ci ay nit. Euh, wala ay nitam ñu mu xam ci ay nit. bu mm. jëlee mm. ñëpp bàyyi leen fi. Mm. donc tuddee ma làmb dañ ma gën a ñaaxaat gën ma waxaat que ne ma war a gën a góor góorlu ci la ma doon def. lu baax bañ am droit à l'erreur. ba na maa ngi koy gërëm bu baax di koy sant te naan incha allah rabi bés ba lépp ñu ci mun dinañ ko def. ñaan sunu suñu borom yóbbuñ seeg jàmm daal. incha allah Karbala moom mooy daje ak Boy Waalo combat boo xamante ne nii combat boo am solo la Karbala yaa ngi jàkkaarloog Boy Waalo. Euh, Modou Mbaye. Hmm. kii daa jël lu mu xamul dafa juum ci choix bi. Hmm? waaw parce que dafa ma gëjoon gis ma am nu ma nu ma ñëwee fekk loolu baaxul mais bi mu ñëwee nii tey dafa am lu ko bett ñun ay mbër lañ xamante nañ ñëw maa xool sax ci bët. te bu jour làmb jaa dama koy dalal damay dama koy dalal ci fair play parce que man maa dëkk ci taatu stade bi dinañ dal jàmm. dëkk stade étage bi mobiliser lañ wax. waaw man yëmbal laay jugee moom si stade étage bi la dëkk. Modou Mbaye na mobiliser loolu laa koy wax. booy waalo mobiliser moo tax ma toogaat fii nañ gore wuy ma. da nga may déglu mobiliser moo tax ma toogaat fii. Dakar déggalu ma la. Dakar boo ko ñamee mu saf da ngay dem jëndiwaat. père ji li nga def maa ñam ma saf sàpp mu dooliwaat ma te bu ma ñëwee jour làmb ja say supporter bu ñu yéexee duñu am foo toog. billaay wallaay bu ma peel bu ma waalo bari na supporter de. macha allah macha allah yàlla ma daan. ndoy vitamine ak vito Mor Mbaye. Hmm. sa waay am na combat de. <laughs> bu rëy. man sëriñ Tuubaa moom. Mor Mbaye combat jàng rek laay bëree. Hmm. jàmbaar. barki sëriñ Bamba am nga combat. wallaay am nga combat loo mën a waaj waajal. barki sëriñ Bamba si lépp nag. am nga làmb. parce que Seydina Mohamed li ko. waaw la 5 ñëw na pare ay wax man sax man ñëw sax pour wax. man dama ñëw pour matal sama contrat présenté wu nii rek. mais man xam ndax loolu. maa la bëgguma sax maa yow ay kaddu sax a bàyyi xel di ma ñeme. bëgguma loolu. maa lépp doole maa fekk naa ko xel comme fekk naa ko fu ne. te mm. <laughs> ragalul barki Serigne Ba ma ragalul. moom day ñëw ci làmb yi fekk mbër ànd ak mbër nit ànd ak mbër mu këf li mu yor yóbbu ko ci cummi loolu fit a koy def. pôl bu daaru xeeru ngor mi ngi xeeru ngor ngi léegi ñu yoon. man kenn xamee ma daaga sant. Mm. man su ma ñëwee jëf laay gën a mën a wax. làmb yëpp xam nañ mm. may waxantu. kii su ma nekk dinañ jëflante na ko gëm. combat bi moom laa gën a fonk si combat yow mos a tolluwaay ban la combat bi am ci seen carrière ci fi ngeen man de xam naa fi mu toll sama carrière man. Mm. xam nga fi mu la mën a yóbbu ma mën a yóbbu xam naa ko. moo soxlaaw ma foofu. Modou ma yóbbu soxlaa ma ko fu ko raw laa soxla Modou kii li muy wax maa ngi koy dégg nga li mu wax dégg naa li mu wax bu baax a baax baax tolluwaay fi combat bi toll ci moom combat de déclenchement la ku ci yox yox yi ah. da ngay xaar hmm. loolu dugg na si bopp bu daaru moom dugg ci bopp man loolu dugg na sama bopp ayee xam ngeen ni ñun booy temps booy njëkk a ah. bu ñuy xeex ku njëkk a dóor yaa gañe moo man ngor la ma dëkk te ñaa ko ma fay la loolu daal mën nam kaa wax daal cuub la Pikine laa dëkk ak fii laa dëkk. lamb amul lool de. man daal ngor la ma dëkk lamb ji la di ñaa di féliciter sama boy fii ah? na fa man su may baaku piano lay indi kon dama bëgg ñu indi ma sooma bi suuf parce dama bëgg a wàcceel bi. cey loolu. waaw ah, parce bu ma defee teg ko loxo teg ko loxo waaw del sangu del sangu del sangu del sangu set mu nekk rap ceekit rap ceekit rap ceekit rap ceekit. ceek kit kéget. kenn kenn kenn kenn kenn ta ta ta ta ta car gi car kees kees loolu dama ko war a wàcceel eh, esaat eh. maanaam su ma duggee su ma lay fekk si angle bi waaw waaw maa ngi ci angle bi waaw waaw bul nekk ngaa ko waay fiis bul nekk ngaa ko waay fiis xaar ma si angle bi waaw ñëwal am problème waaw ah, ok jaajëf mbokk yi seetaan la 2STV ah woo naa Franc Franc nee na mi ngi mi ngi koñom xaama dem xool parce que wax naa leen Franc Sokh combat la boo xamante ni le 19 juin lay am ci arène national jàmbaar production moom moo ko wootee gis ngeen ñu ngi jóge poste Thiaroye ci rond point ba fi mu toll nag ñi ngi parcelle buñ fi jógee dañuy xooli Sokh wala sax ñoom ñaar est-ce que duñ leen xoolandoo njaago waxal waay maa lay ziar. delloo ziar. naka waari gars ko salaamaaleykum. muy cool gars yi maa leen bëggee. yaa rek. nga nuyu loolu. yow ngay bëreel nekk fii di nuyoo. non loolu loolu loolu jaaxaluñu. mais lu waa koñ bi moom nga jox leen ko loolu mooy loolu mooy loolu mooy dawal bi. pousse booy bu la ñu moo ñu si Bal Tamba. salaamaaleykum ah Modou def ça ñu koy ñaanal ndam bu réeréeréeréer. Hmm. moom la ñu yaakaar daal moom. Corène bi ñëw fii nag parcelle bi defu fi lenn lu ñaaw loo xamante ne mën nañ ko ko joxoñ tey dina lii la fi def ma yóbbu ba estaat yuuxuloo ma solloo ma sëru njaago ma ñëw tooy laaj ko njëgu supp 5000 moom ay dawloo na ma ko jox ma doog ko waxal li ma ko. yéen ñaa yéen a nekkandoo xale fii. fii. c'est un garçon qui est sage docile il n'a pas de problème mosuma ko àtte kenn depuis qu'il est là depuis qu'il a commencé aussi à exercer la lutte. waaw. il a le même comportement. Mm-hmm. il respecte tout le monde amul ak kenn affaire. yaayu Fara.